jërëjëf euh, mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu fii ci Sindia man na Moussa saw seen xarit seen doom tey ji nag ñu ngi fii ci Sindia ci beneen faset lu soxal Sénégal muy jàmm diwre Sow indi ñu fi tey Diwré Sow nag bu ngeen gisee ñu ciy dox di ci wax mooy dégg ngeen baykat yi ñu cor dégg ngeen sàmmkat yi ñu rey ci fetel walla ci ratu Sénégal fu nit mën a nekk nga may seetaan xam nga ne li ngay dégg ña dee nañ ci mbay gi ak tool yi mot nañu ay junniy junniy nit te loolu day yàqum réew day yàqum àdduna yéen ñi may seetaan yàpp bi ngeen di lekk soow mi ngeen di naan cere ji ngeen di lekk góor ñoo ñu koy bay ñoo am ñàkk déggoo boo xamante ne dañoo fàtte yoon dafa am ma jógoon nag am benn initiative bu tudd Diwre Saaw di leen di dajale ci biir Sénégal yëpp. di waxtaan ak ñoom ci rajo yi ci tele yi ak ay concert ba nga xam ne ñoom ci seen bopp dinañ xam ñoo bokk ndey bokk baay dootuñu gorante dootuñu xeex dootuñu xuloo loolu moo tax tey nag ngeen gis fi mbër yi ngeen gis fi artistes yi ngeen gis fi kilifa diine yi ngeen gis fi ñëpp ñu topp suma gannaaw ma bàyyi fa ma dëkk Jandeer ñëw tey ci commune Sindia fekk fi monsieur le maire mu dalal ma maa koy sant fekk fi sama xarit Abdoulaye Ba ak ñëpp. Diwré Saho nag maa ngi ci woo kilifa diine yi di ci woo kilifa aada yi di fi woo gouvernement bi di ci woo opposition bi ñu déglu ñu su ngeen ñu dégloo di ngeen comprendre li ñu bëgg a wax yéen a ko war a wax yéen a ko war a def loolu mooy sunuy tànk tey fii jërëjëf. Euh, léegi ak euh, kilifa ñoo fi. Laay Pythagore bu écurie Rock Énergie bu Modou Lo mi ngi fii ah. yéen a ngi fi gis tamit Moussa jum mu yore écurie boppam ñëpp xam ko muy champion yéen a ngi fi gis tamit artistes yi monsieur le maire ne fi ay imam nekk fi ay kilifa dina ne fi ay président éleveur tamit nekk fi ay représentant loolu rek dèjà tënk na lépp aha yan def-def yu yu yu xam nit mu dem di sàmm loo xam ne motul fukki nag. mu ruural ci benn tool xeex fa rey fa rey fa nit ñu tëj ko ngir dundam kër ga tas ma xam ab baykat boo xam moom rek la yaayam ak papa mamoon mu xeex ñu cor ko dagg ñaari loxoom adunaam yàqu ci biir Sénégal depuis may nekk xale may dund loolu di bañ mu continuer loolu moo nekk tey suma tànk. Mhm. Euh, ginnaaw cérémonie ngi fi xaar El Hadj yëral kam mooy soire soirée mais El Hadj Baaba Maal moo engagé wu pour Fuuta ak Podor yëpp moom moo koy def Abu Juba la ñuy xaar ci yeneen secteurs yi ak suñu jigéen Kumba Gawlo ñu ànd ceeg Abi nduur ñooñu la ñuy xaar pour def tournée parce que kenn mënul defar Sénégal Kumba Gawlo bokk ci kenn mënul defar Sénégal Youssou Ndour bokk ci kenn mënul defar communication Baaba mal ñëwul Abu Juba ñëwul bon artistes yëpp ñoom lañuy xaar mais tey moom Baaba Maal mooy ñëw fii ànd ak yëral ñu ñu waxtaan ak nit ñi non seulement woy mais wax ak ñoom. wax ak seeni doom ak seen i rak. est que waa nguur gi eh, eh, nga est c'est bien wax naa ci ak euh, monsieur Augustin Tine ministre force armée wax naa ko wax naa ko président de la république wax naa ko Thierno Alassane Sall. foog naa ne wax naa ko sax ci ñi nga xamante ne ñoom Aliou Dembour nga xam ne président moo leen jëbal ci élevage wax naa ci ñëpp même opposition bi maa ngi wax ak ñoom. waaw lii nag man moom laa am bu mu duggee si politique mooy luy tere histoire moomu ci dugal mais du pour leneen. léegi après tournée bi sa plan d'action moo ciy tegu après. ñu ngi fas yéene ubbil sunuy buntu rajo yi tàllal leen loxo ak télé yi ñu bëgg ci ay émission xam ne sàmmkat yi ñoo ko moom te ci lii rek la ñuy wax wàllu jàmm à loolu aussi dafay am tournée Sénégal yëpp Diouré saaw dina boole ñetti Fuuta yëpp. fuuta ba ci Mauritanie fuuta bi ci Sénégal ak fuuta bi ci Conakry ndax lépp loo xamante ne day defar su sous bi ñu nekk muy Gambie muy Guinée muy Mali muy euh, Mauritanie ñu boole réew yëpp xale yi yeewu ne ñoo war a taxawal seen bopp doon seen militaire bopp ànd ak seen nguur défendre seeni i drapeau te loolu jàmm moo ko mën a laal loolu mooy suma objectif ok. waaw man maay Moussa Dioum di euh, mbër nekk écurie Parcelles mbooloo kii laay Pythagore la de tudd moom Rock Énergie na la nekk mhm, la. lan moo doon seen tànk waaw suñu tànk mooy dañoo gis ne dëkk li koy développé mbéy ak élevage bokk na ci tey tamit ñu gis tamit ne sàmmkat yi ak béykat yi dañuy xeex ci àll yi di gorante ay jaas ak yooyu te loolu ñun rafetlu wuñ ko loolu moo gën a tax ñu ñëw fi tey. kon maanaam en tant que mhm. a impliqué wu ci affaire waaw duñ ñu wax sa waxu mbër dañuy wax ni ñun ay sénégalais lañ ñun ñëpp ay mbokk lañ tey boo laalee pël laal séeréer nga xam ne ay kal lañ te sàmm bi presque pël yi ak séeréer yi ñoo ci ëpp. te ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañoo war a seet ni mu gën a rafet ñu doxale noonu ndax ñun ay porteur de voix lañ du ñu dugg ci loo xamante ne nii neexul doomu aadama yi ñun lépp lu ñuy dugg dañuy fexe mu nekk luy boole te man damaa jàpp ne sàmm day boole élevage tamit day boole gis nañ ni day te loolu luy participer ci développement wu réew mi la kon ñun lépp loo xamante ne ni day jëmale suñu réew kanam ñun dañ ci war a xar suñu tànk tubéy ñuy ñaanal éleveurs yi ak sàmmkat yi yal na leen yàlla defal jàmm ba li ñu bëgg ci réew mi yàlla defal leen ko mais tamit ñaawlu nañu ngànnaay yi ñuy yor. di xeex si seen biir di gorante loolu rafetlu ko ñu ngi ñaan képp koo xamante ni yoroon nga ngànnaay nga wéer ko teg ko nele xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk bu jëmee kanam ñun la jëmale kanam bu delloo ginnaaw ñun la delloo ginnaaw su ñaawee tamit ñun la ñaawal loolu daal laa amoon luñ ci lu ma ciy wax di ñaan ñi nga xamante ni lii ñu organiser dafa nekk loo xamante ni nii képp ku ko dégg. war nga cee teg sa loxo parce que lii dafa rafet te lii luy boole la te àdduna lépp luy boole rek doomu aadama yëpp dañ cee war a teg seen loxo di ñaan yàlla Sénégal yàlla na jëm kanam ca kanam incha allah. ay Pythagore nekk équipe partenaire Rock Énergie yow say tànk ci ndaje bi bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp. lii nii dafa neex di soññ gouvernement bi nag Sénégal yëpp lii dañ cee war a teg loxo. parce lii lépp jàmm la rek lii lépp jàmm la senegal ñëpp dañoo war a booloo xam nga jàppoo liggéey mu jëm kanam te ko mel ni Thierno ak monsieur le maire mi si yoon boobu leen jël kon ñu ñaan ñëpp ñu jàppale leen ñu dooleel càmm bi dooleel mbay mi dooleel lépp waaw waaw waaw.